li ci yéenekaay yi Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout moo leen di may seen revue de presse NCA assurance auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey ak USAID Breakthrough Action ñoo leen di may li ci yéenikaay yi yéenikaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf tiis wi réew mi fanaanoo moom la journal yu bari xëy yeewoo mu di làquk Chérif Abdoulahi Thiaw Laye xalifa général des Layènes ak bopp Serigne Abdourahim Seck xalifa général bu Ceneba L'Observateur Enquête Vox Populi Tribune L'As ak Témoin ñoom ñëpp ñu xëy tàgge ñaari nit yàlla yi wàccub liggéey ubbi L'Observateur kenn ki di Seydina Abdoulahi Thiaw Laye yéenikaay bi nee nañu moo ne woon juróomeelu xalifa général des Layènes démb ci altine la nelaw ñu denc ko ay boori 9 heures ci 21 heures ca wetu way juróom wu tedd wa di Seydina Issa Rohou Laye Baye Ablaye Thiaw Laye nañu ci weeru avril ci la toogoon ci jal bi wuutu woon fa Seydina Mame Alassane Thiaw démb ci la làqu ci téeméeri atam yu manki juróom di beneen nitu yàlla gi nelaw démb di Serigne Abdourahim Seck l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne moo ne woon juróom-ñetteelu xalifa général bu Ceneba at ak ñaari weer la toog ci xilaafa gi ca Maroc fa la wàcc ab liggéey ko jagleloon yàlla sunu borom yonent bi alxuraanul karim julli ak mbay Seydina Abdoulaye Thiaw Laye noppalu na ginnaaw ñaar fukki yu mu yore woon xilaaf ak maam Limaamu Laay almahdi gi ma nga tëdd léegi ca wetu baayam bu tedd ba di Seydina Issa Rohou Laye juróom-ñetteelu xalifa bu Ceneba moom it di Sëriñ Abdourahim Seck ginnaaw fukki weer ak ñeent yu mu doon xalifa général Ceneba wàcc na liggéey démb tribune nañu suñum réew di Sénégal mi ngi jooy Sëriñ Abdoulaye Thiaw Laye di jooy Sëriñ Abdourahim Seck enquête dina kay nañu moom Sëriñ Abdourahim a yegsi waaye njaboot gi sàkku nañu ci taalibe yi ci ku ci nekk na toog ga ñaari jàmbaari lislaam yi dolli na ci di ñu leeralal ne sëriñ Abdourahim Seck xalifa général bu cene ba mi ngi làqu ci juróom-ñett fukkeetam ak ñaar maanaam 82 ans gone yi 2 ans yi ba lu ko jege la sinekaay nee nañu troisième vague bi ci coronavirus bi ak variant delta bi sonal na leen lool wàññi nañu fukki xale ak juróom yu wopp ji sonal ba ñu nekk ci état bu garaaw wàññi na ñit ñeenti gone yu woppu ji faat ca ñoom am na ci benn parental bu juróom-ñetti weer lise ko ne ci Albert la xewe xale yu covid 19 bi yóbbu bokk ci ñoom benn liir bu toll ci juróom-ñetti weer xibaar na ñàkk ñu ñàkk nit ñi ngir àlleen ci wopp ji mu di vaccin anti covid jigéen ñi wéru li léegi bokk nañu ci yaatal nañu ko ba mu yegg ci ñoom léegi femme enceinte yi ñoom it mën yi ci réew di xamle ci bi di Le Quotidien ne xeeti vaccin anti covid 19 yi am ci réew mi jigéen ñu wérul bu dee jigéen ñu wérul ñi ñoom lu ñu ko mën a moytu ci seen yi moo gën moo gën faju soleil national mel na ku naan moo taxit pharmacie yi ci réew mi mbiru yombul ci ñoom gudd yu ñu toll bi rubi ak grippe bi ñëw fekk fi coronavirus bi fi ne woon nit ñi yittewoo yenn garab yi tax na am na benn pharmacien bu leen wax ñoom waa Soleil ne yenn médicament yi tàmbali nañoo ñàkk di rupture ci pharmacie li ci suur suwaa kenn xamul noo koy tudde mu njëkk journal bi ci examen BFEM yi ñu tàmbali démb ci réew mi ci la gis lu doy ca département bu Louga ak ca Linguère ñetti téeméeri candidat ak fanweer yu waroon a examen BFEM te kenn gisu leen démb ca centre d'examen ya a kaay bi nañu ñaari téeméeri candidat ak juróom benn fukki ca département bu ak sunu làmbu mi xëy ci ndeem si mbay Mbaye Gueye Tigre de Fass ba woon yéene kaay bi wax ñu lu bari ci lu ñu bari umpale woon ci moom mbay Gueye moo ko wax waa sunu lamb ci ak dundam nee na leen bëri na ci carrière am juróom-ñaar fukki combat jàpp juróom-ñett fukk am na sax ñu daan wax naan moom mbay Gueye jinne la mu ne it moo gënoon a siiw ñoom Siteu ñoom Modou Lo ak ñoom Balla gay 2 yi ñuy tudd tey xamal na leen ni Serigne Fallou Mbacke moo ko ne woon danga doon boromu tur ci réew mi mi leen di jagleel